السلام عليكم ورحمة الله وأمبكي وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون الصدق الله العظيم وأقول لي وخي يالا وخ جي وخي يالا وأي أمر خليفة نياس دا موم لمشي وخدو دك موم وخ يالا آي بي ولا بوغ وخ جي بروم بي سورة البقرة يالا دفاي واني نيغا خامني أمتو كاتنو وور أمتو كاتنو وور xëy na seenu mage moo tax amuñu kàttanu woor wala dañu yore feebar boo xam ne mayatu leen ñu woor feebar bi àndul ak koor ñooñu borom bi dafa wax ni euh, mën nañu joxe njot njot gi mooy lan mën nañu joxe ñam jox ko miskin bis bu nekk ñu génneel miskin lu ko suur loolu lañuy def ci diiru weeru koor yi ba mu jeex ñoom loolu mooy nekk seen koor loolu lan la ci football wuti ponkal muy daw cent vingt minutes te du sonn nga bëgg koo dooleel dugal ci màgget yi mënatula woor ak ay feebar yi nga xam ne dañu yore feebaru euh, robaale nga taxaw ne euh, caaxaankat yi nga xam ne li ñuy def sax dafa xaraam nga teggil leen koor mais loolu Ahmed Khalifa rek moo ko sañ a def ci Sénégal te kenn du ci wax toog ci télévision dajji aaya alquran te kenn waxu ci toog ci télévision dajji xadiis te kenn waxu ci mais loolu mooy lan te ku ne ku jàng baabu ridda buntu bi jàngale nit nan lay murtatee ci lislaam boo ko jàngee xam ne Ahmed xalifa lii mu def jëfiku ku murtat la képp ku daganal lu xaraam murtat nga képp ku daganal lu xaraam murtat nga te ku ci ànd ak yow murtat na lan mooy murtat mooy nga fekk lu dagan ba pare nga xaraamal ko léegi nag yow boo fekkee lu war lu war faf nga dindi ko banaliser ko koor ni mu nekkee farata ci ay jullit nga ñëw teggil leen ko parce dañuy faw yi yéen ñuy faw yi mën ngeen a bañ a war te doxañ jàmpaay loolu ban aaya la ko yàlla wax ban xadis la ko yàq amul amul sax wuute ci madhab man ay mbokk woon nañ ma ci ba tàyyi na ma seetaan ko daana ko dama ko dabaatal bi ma paree laa ko déglu man leen kii li muy wax du dëgg yàlla waxul benn fokkat mën nga dagg sa koor nga joxe ñam waxuma dara ñu naan dañ leen koy génneel ci alali réew mi pourtant alali réew mi kan moo ko moom ay caaxaankat la ñuy fayal ci koor loolu bu daganoon sax ñun d'accorduñu ci réew mi di ko def rawatina ba nga xamee ne daganul parce que nee na entraîneur bi nee na moom ñi muy sélectionné ñu war a dem fële kenn du ci woor daleen koy tere entraîneur bi mooy kan waa FIFA ñooy ñan fédération ñooy ñan ñoo ñu ban maqaama la ñu am di tere nit ñi pour ñu jaamu yàlla parce que seen discipline bi nit ñi bëgg nañ ko nga bëgg leen a taqale ak seen borom jullit boo xam ne signé na ak yàlla contrat ba noppi fasanteeg yàlla kóllëre ci azal alastu bi rabbikum qaalu bala nga dellu si fii ci àddina na aslamtu nafsi jébbal nga yàlla sa bopp ginnaaw bi nga signé moom kóllëre na moom rek ngay jaamu nga ñëw ay discipline yu ñàkk fayda ay fubali ki bëre tax ñu naan la boo koy def da ngay bàyyi jaamu yàlla nga nangu képp ku bàyyi koor ngir caaxaan bàyyi julli ngir caaxaani yow murtat nga ci lislaam discipline boobu muy fubal muy bëreeg muy basket ak bu mën a doon nit di la ko defloo imposer la ne la lii ngay def soo koy def da ngay bàyyi jaamu yàlla kooku ku ko def murtan nga génn nga ci lislaam wa taariku wa taariku awqaatin li xidmati cheikhin ka aabidi asnaamin bi xeyri mira cheikhul xaaj malik nee na waxuma sax powum àddina nee na sa sëriñ bi lay yóbbu ci yàlla nee na nga di ko liggéeyal ba waxtu julli jot nga lànk ba ñu julli continue di liggéeyal sëriñ bi ab jaamukatu xërëm nga kon kuy liggéeyal ku gëmul yàlla nag c'est comme nitu yàlla bi nga wax ne moo lay yóbbu ci yàlla moo lay gindi sa digganteeg sa borom soo koy liggéeyal ba waxtu julli jot da ngay dem julli ji soo continuer Cheikhul maa li ngay wax soo continuer di ko liggéeyal bàyyi waxtu yàlla wi mu jàll nee na ab jaamukatu xërëm nga werante amul ci kon fa kay fa kuy liggéeyal tubaab boo xam ne xamul sax ne yàlla am na yoonam newul ci alxuraan yoonam newul ci yonent ñu naan la mën ngaa joxe ndàmpaay loolu du dëgg te li muy wax nii li ko may chance mooy parce que sénégalais yi gis nañ ne am na alal gis nañ ne bokk na ci famille bu mag gis nañ ne nee na ñooy doomu sëriñ la moo tax waaye keneen ku ko waxoon Sénégal yëpp dal sa kaw moom mooy kan ba kenn dalu ci kawam dafa am alal lan mooy alal dafa bokk ci famille lan mooy juddu fii juddu taxawu fii juddu bu rëy kañ ak ëppale ñëpp ndax ndeyam ak baayam yëpp bete cest yooyu dafa taxawul Sénégal dañu war a bàyyi kumba am ndey kumba amul ndey Ahmed Khalifa Niass chaque année nii lay def bu koor gi ñëwee mu ñëw dajj lu ko neex ci alquran dajj lu ko neex ci xadis te loolu kufru la te kenn du ko wax loolu fan la ñu ko teg leneen lu ñu fi waxati ak naafiq dong lay waral bu dee Ahmed Khalifa Niass mii kenn mënu ko wax dëgg dañu ko nar a bàyyi nii muy wax lu ko neex su ëllëgee ku ñu fi waxati dara dan la yab rek waaye li ñuy wax du dëgg lu dëgg bu doon dëgg kii kenn du ko bàyyi mu def li muy def taxaw ne fii daganal mees ak greffage te yonent bi moo xaraamal mees xaraamal greffage nee na daganul Ahmed Khalifa Niass taxaw daganal ko moom pourquoi ñu di ko déglu yonent bi nee na xaraam na xalifa na dagan na dara nekku ci ñu continuer di ko déglu loolu ku ko def génn nga ci lislaam yàlla ñëw daganal yàlla ñëw farataal koor waxuma dagan yàlla ñëw farataal koor ci ay jullit mu ñëw teggil leen ko parce que da ngeen di fowi munu leen koo boole teggil naa leen mais loolu senegal yeb tok di setan melni limi def grawul di dajj alquran di hadis, hadith ñu tok di setan mariage temporaire fi lay tok di daganal góor ak jigen buñ dañé won ci mbedd sax xolanti ku nekk ne sa morom joxna la sama bop nga ne ko nanguna rek nee na mën andi di sey di dem affaireu yoy moy lan mom non lay také jabar principe l'islam yëpp mu ñew dajji ko sanni fële ñëpp tok di setan pour lan khalifa limi def du deug waxul xam-xam waxul alquran waxul ba kanam lay waxe kanam lay waxe li muy wax teg ko fen xam na ci lim làqatu di wax parce que xam na ne sénégalais yi dañu am complexe mboolem oustaz yi ñu ko booleeg sax ñuy toog ci plateau yi dañu am complexe ak moom mu dajji koor ne warul ñu naan ko wa an tasuumu xayrun lakum wa an tasuumu xayrun lakum du contexte boobu moo ko tax a jóg wa an tasuumu xayrun euh, yow mi tukki may nañ la nga dagg sa koor mais su fekkente ni tukki ba tukki bu dagan la ànd ak loolu yëpp sax soo wooree moo gën yow da nga feebar teggil nañ la mais boo yëgee ne mën nga soox ci feebar bi nga woor te du la loru mais boo wooree moo gën loolu lan la joteeg football ñu naan footballeur bi bu bu wooree moo gën loolu du dëgg parce que boo ne footballeur bi bu wooree moo gën wala caaxaankat bi bu wooree moo gën ndax mu gën a yaatu bañ ko canaliser mu yem ci football kese soo ne bu wooree moo gën kon daa mel ni même su woorul sax def na lu baax te loolu du dëgg. du deug ku kum ci tax nga bayyi sa koor gi ndax da ngay dem fawi wala da ngay fubali loolu lu haram la kenn amul droit di imposer julli di ñu bayyi jaamu yàlla ngir sa liggéey kenn amu ci droit li muy def nii lañ war a bàyyi Sénégal nañu bàyyi bay bayal ak setan. taxaw ne fii wax ne même sangu set gii ñuy wax nii sax dayo bi yegul foofu jigéen gu ci tegoon say greffage yu mag nga dem ba digg bëccëg nga pose fekk sa borom kër daf la soxla pour yéen ñaar ngeen sëy nee nga dem sey ak mom ba pare te nga xamné ne sango euh li nga defoon ci sa bop bi day yakku mën nga baña sango sangu demal nga raxas sobi bi rek nga japp nga julli mais xolal li yu bon ngeen bal ma sax ci gi ji jëf nuñ koy waxé nit wa in kuntum junuban fatahharu taharu téere xamnañ ne mooy sangu set mu dem sango sangu set chaque année mu toog wax benn scandale bu ngand ci diini ji dee leen takk sa yi ci SMS yi te moom du ko def li muy digle dara la judil def lawal njaaloo gi ci àddina man dama ragal ne moom ku nu yabal la pour mu yàq diini ji mais dafa war a arrêté li muy def ku yab nit ñi la te ñun dégluwu na ko yonent bi la ñuy déglu waaye heure bu waxee erreur dinañ génn wax ko ne ko lii nga wax du dëgg Sénégal nag passé ne fu fi nit di toogee di wax lu la neex te kenn du la wax dëgg amatul koo fi mën a doon boo fi waxee lu dul dëgg dañ naan la waxoo dëgg ak famille boo mën a bokk ak koo mën a doon naa ko def te kenn du ko wax moom du fi am ku ko fi def nu wax la ko lii muy def tegu ko fenn du alquran du sunna du xam-xam ba bakken dong lay waxe ay jigéen ak artiste rek lay toog ci télé bi di wax lu ko neex waaye wa ala alladina yutiquunahu fidya loolu ay ka taxuñu ko jóg ay jaamu yàlla yu dund ba seen dund yàgg lool ñu tële mënatunu mbaa nu feebar tële mënatunu yàlla tegg leen ko yoonu footballeur newu ci Sénégal nag ànd jayante tàggoo jëwante moo fi nekk waaye ku wéet ak yàlla xam ne kii li muy wax du dëgg te kun ko ci digal boo wéetee def ko di nga xam ne lii may def nii du dëgg waaw qulil xaq walaw kaana murnan dëgg lu mu metti metti nañ ko wax te dëgg mettiwul dëgg ci caaxaankat dong la metti waaye nit ku dëggu dëgg day neex ci moom qulil xaq walaw ala nafsik même bu doon dal sa bopp waxal dëgg gi waaw kunu qawamina waaw bil qisti shuhadaai lillahi ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما gis nga ànd àndu yàlla la war a doon di seedante dëgg tekku ci dëgg amul kii ndey la kii baay la kii fii la bokk kii famille sàngam la bokk kii borom alal la yooyu du tus kenn amu fi lu la nit di xaare ëllëg balaa ginnaaw ëllëg nga dee bàyyi fi alal ji bu dee mbooloo la nga dee bàyyi fi mbooloo mi waxuma moom ci boppam nit ci boppam laa wax bala ñoo defe ne moom la ñuy wax balaa ëllëg nga dee dama ne nit ki ni yéem di ku rus ngir alal nit ku mën a doon nag laa wax balaa ginnaaw ëllëg mu dee ba fi alal ji ba fi mbooloo mi bu la taxee fàtte yàlla ba ñeme woo ko wax dëgg di nga mënta wées ak wéet sa borom doo fa gis alalam doo fa gis mbooloowam doo fa gis famille wam doo xam nooy def dëgg yàlla moo ko moom diine ji yàlla moo ko ad diinu lillahi waxda diine ji diine yàlla la ku ci raxlu ci bokkul nañ ko wax ne ko lii ngay def du dëgg mais ceetaan gi jéggi na dayoo ëpp na te alalam wala mbooloowam wala darajaam ci àddina warul tax ku toog moom di ko rus ba doo ko wax dëgg li muy def du dëgg du yoon tegu ko fenn te du diine du xam-xam bakkan dong la ngeen baal ñu àq wasalaamu aleykum wa rahmatullah